السلام عليكم ورحمة الله مبوك انتنا يوسين فوبل تي في نيونا لين بو باخ باخ زيارن تينا دوي نيو واخ سي نياري غيند نياري غيند اي كين كي موي ادوار ميني اك عبدو جالو نيب سي نان فينال كوب دورو بي خامتاني ايطالي مو دون تيامارلو اك انجلتير انجلتير نك دا بارت سي تيرو بي نيتي جور نك راتي راسفور سانسو اك سيكا ماس بي نك بومو جيخي

Ah, waaye beneen message message de soutien di wax ne heureusement moom moo ngi Sénégal mais lii kenn waru ko nangu dañ ko war a combattre bu baax baax a baax ma lu kàddu yi bu baax après nag tey Edouard Mendy def na benn message au niveau de Instagram moom tamit wax na xalaatam ci affaire bi nee na football day boole warul xàjjale sport bi xamante ne moom la ñu gën a seetaan ci monde bi xam ne yow sportif bi yow ko sa yaay football yow non seulement non seulement daf ne dañ ko war a xeex si société bi mais waruñu ko nangu fenn te moo ngi envoyé benn message de soutien carrément ñetti jours yooyu léegi nag lan lañ mën a wax ci lii nii mooy que tubaab yi am na fu ñuy toll nag dañu yàpp noir yi franchement ndax bëri na si football mondial ñaati coupe du monde moo xew ñaati coupe d'Europe moo xew ñaati ligue des champions moo xew ñaati blanc ñoo rate blanc wax keneen ak keneen yàgg nañu seen football gis nañu ay blanc di ba taay kenn waxu leen dara seetaan naa fi benn final bu xamante ne yàgg na xam nga moo si archive yi Badjo jël bal bi naawal ko mais kenn du ko wax dara donc ñoo ngi nekk deux mille vingt xëy na sa ay at ci ginnaaw moom nga ko nangu ay at at ci ginnaaw te loolu sax war ko mas nangu mais deux mille vingt et taxaw di am naxar di wax ne dañoo mer nit mën na mer mën na am naxar ndax ñun Sénégal sax. coupe d'Afrique bi mu ne dañoo mer mer bay bëgg dee te ay sénégalais lañ mën nañu neex bu ñu neexee sax ñu mere ay jour mere jour nag waaye dem nag ba bëgg de affaire de racisme ça veut dire que ñoom dañoo mës a racisme bu ñu gañee daal racisme amul waaye bu fekkee dañ leen di gañee rek racisme voilà day am quoi en tout cas mbokk yi dinaa leen wax ne dinaa defar benn vidéo gën a leeral affaire yi wax si affaire yi racisme yi par rapport ak Binos Noor yi xamante ne xëy ak Binos Noor yi xamante ne dañuy hésité Sénégal football wala du may football si dëkk bëri xam naa si daal naa si def benn vidéo gën ci wax sama xalaat parce que sama point de vue boobaa laay joxe di xaar ci commentaire sax ngeen jox seen point de vue en tout cas li mu leen mën a wax mooy que sénégalais yu bëri quand même wax nañ si envoyé nañ seen message de soutien ñetti jours yooyu mais ñaari message yi daf ma touché muy muy bu Abdou Diallo ak bu Edouard Mendy donc mbokk yi nag ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur seen football